waaw moom maître Amadou Diallo nee na nag lii maanaam kenn mënu koo nangoo yéen a kaay gi di li quotidien nee na François mi nga xam ne fan yi ñu génn moo génn àdduna tax na communauté Mangagne bi ñoom ñoo ngi sàkku def liggéeyam ci mbir mi yéen a kaay gi di l'observateur na lu jëm ci wàllum faatuk François Mankobo enquête bi jamono ji commencé nañ ko yéen a kaay gi di les échos nee na Idrissa mi nga xam ne moom la faatoona fukki fan ak ko boroomam corps bi njëkk autopsie ay mbokkam dañoo wax ne autopsie boobee jaarul yoon ndax Idrissa Goudiaby balu fetal moo ko rey loolee moo tax tey jii ci hôpital bu Grand Yoff dinañu fa defaat beneen autopsie yéen kaay gii di Le Quotidien nee na étudiant yi nekk ci université Gaston Berger mer nañu ba mara détaillé li nga xam ne moo leen metti ak li mooy restaurant yi nga xam ne moom la ñu tëj moo tax Sud Quotidien nee na mboolem li nga xam ne ay restaurant la fa étudiant ñetteelu mandat loolee dañu ko war a teg ci suufa ndax Macky Sall bu ko jéemee def mën naa andi giraawaaliku njombe ci réew mi maanaam kaaw Sénégal mën na ci dugg ndax Abdoulaye Wade bi mu ko jéemee lu toll ci fukk ak ñeent ñàkk nañu ci seen bakkana ñooñu nga xam ne ñoo ci faatu woon ci jamonoy Abdoulaye Wade bokk na si sax li tax ñu amal fi ab référendum Macky Sall tey mu bëgg a jóg bëgg laajaat ñetteelu mandat te bu boobaa maanaam nag musiba rek lay andi ci réew mi te nag ñi nga xam ne ñooy homme politique yi maanaam dañoo war a bàyyi fen yeeg yi nga xam ne moom la ñu nekk ci réew mi politique yi dañoo war di respecter seen i kàddu yéenekaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa professeur Mamadou Diouf nee na élection législative yii nga xam ne moom la ñu nekk ay présidentielle anticipée la yéenekaay gi di évidence xëy di ñu xibaar naan ñu Serigne Fallou Mbacké mi nga xam ne mooy président conseil départemental bu Mbacké jóge na ci coalition Yewwi ndax moom dafa gis na leader yi nga xam ne ñoo nekk ci Yewwi dañu ko trahir maanaam dañu ko wora ba pare amuñu benn considération ci moom yéenekaay gi di ci réew mi yéen kaay gii di bés bi ak réew mi xëy dañu xibaar naan ñu Babacar Diop maire bu ville bu Thiès moom ab otom dañu ko sax-saaxe journal bi nee na garde corps Ousmane Sonko yi la ñu tuumaal mbir mu ni mu demee journal bi ne na coalition Yewwi seen caravane bi bi mu ñëwee Thiès docteur Babacar Diop en tant que maire dafa bëggoon a jiite li nga xam ne mooy caravane bi si biir loole loolee nag la garde rapprochée yu Ousmane Sonko yi lànk ba tëdd sa naaj wa Babacar Diop yàq nañu ab otom bi nee na ma nga soo hôpital ba jot naa porte plainte ca diwaanu Bunkilinga foofee tamit jàppante bu metti moo fa amoon diggante coalition Yewwi ak wa Benno Bokk Yaakaar am na si ñaar ñoo xam ne am nañu ci gaañu gaañoon yéen kaay gii de la sa Marème Faye Sall première dama wàcc na ci terrain bi ma ngi ci biir Ndakaaru di battre campagne di jàppale Amadou Ba ak alundu Ndoye yéen kaay gi nee na Abdoulaye Daouda Diallo ak Cheikh Omar Anna ñoom ñoo ngay toj Podor du yow boobee démonstration de force bu doy waar la Abdoulaye Daouda Diallo ak Cheikh Omar Anna di wane jamono ji ca diwaanu Podor yéen kaay gi di Rewmi Quotidien nee na kenn du Ousmane Sonko ca diwaanu Tivaouane bi muy wax ba gis micro bu bi daf koo génnee daal di koy sànni sa àll ba Ousmane Sonko nee na RTS campagne ba campagne lay daal di li nga xam ne mooy activité yi opposition bi defa te loolee jaarul yoon ba tey ci journal bi di Rewmi Quotidien ci xalima ak Assane Samba nee na lii nga xam ne Ousmane Sonko def na ko du lu bees ci RTS ak opposition bi ndax Youssou Ndour defoon na lu mel nii ak maître Abdoulaye Wade yéene kaay gi di Source A nee na Barthélémy Dias dossier Petro-Tim bi maanaam wàllum pétrole beeg wàllum gaz beeg luubal gi nga xam ne moom lañ ciy wax di ci tudd Macky Sall ak Aliou Sall loolee la Barthélémy Dias yéene kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu Guy Marius Sagna ca diwaanu Ziguinchor mbooloo mu baree bari moo ko toppoon ci concert de casserole bi nga xam ne doon na ko amal yéene kaay gi di Vox Populi xëy di ñu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi jamono ji ñoom dañoo am confiance ne dañuy gagné li nga xam ne mooy élection législative yi Ousmane Sonko nee na coalition Yewwi Askan Wi dafay gagné waaye nag moom bu boobaa du nekk premier ministre Macky Sall yéene kaay gi de la sa nee na coalition Yewwi Askan Wi def nañu lu dara jëruta ca diwaanu Mbuur ci seen caravane ba Ousmane Sonko bi ko gaay yi gisee ci caravane bi bëri na ay xale yoo xam ne dañu ko doon tàcc waaye nag boolee ko ak i waaye doon waax naan tey duñu xiif ndax Ousmane Sonko moo fi ñëw tey duñu xiif ndax Ousmane Sonko moo fi ñëw loole la askan wu bare bari génn démb ca di ko wayal Ousmane Sonko journal bi nee na coalition Yewwi Askan Wi sa diwaanu Fatick foofee tamit askan wu baree bari ñoo génn di mañax-mañax yi Ousmane Sonko daan nay wax ak ndaw ñi nga xam ne ñoo war a jëli seen carte d'identité yi daan na leen wax tamit ne bisub élection ya na dem vote ji yéen kaay gi nee na Aminata Touré moom ma ngay ak Kédougou Aminata Touré nag ca diwaanu Tamba ak ca Kédougou ma ngi wax projet yu yi nga xam ne président Macky defal na ko ndaw ñe yéen kaay gi de la Tribune nee na na maatama li nga xam ne moo ko waral mooy giraawaal yeeka njombe yi nga xam ne moom la Farba Ngom dëkkee yéen kaay gi di record ñu xëy fekk fa Kalidou Koulibaly moom nag wax na li nga xam ne moom la fas yéene def ci club bii di Chelsea yéen kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Gris Bordeaux nee na combat bi nga a a